ñun on a indexé directement la mauvaise politique de nos dirigeants africains parce que aujourd'hui les causes de la migration irrégulière je rappelle que kenn waxatul immigration clandestine parce que le mot clandestinité c'est un mot dérisoire finalement actuellement dans le monde de la migration ñun on participe sur des sommets internationaux kenn waxatul immigration clandestine immigration irrégulière la ñuy wax loolu li tax ñu wax ko mooy un clandestin lee xew rek loolu la mën a indi parce que un clandestin sàcc sax c'est un clandestin kooku tu as le droit de le tuer tu as le droit de le malmener tu as le droit de tout faire sur lui mais malheureusement jeunes yi cause bi dafa partagé y a des causes psychosociales à travers la pression sociale yi ñuy recevoir ci famille yi mais y a des causes en parlant de causes économiques il faut savoir y a endémique il faut savoir que bëgg nañu xëy amuñu fu ñu xëyee bëgg nañu tekki tekki wuñu bëgg nañu jàng nañ ami seen i diplôme finalement xamuñu fu ñu mën a liggéeyee parce que bi ñuy jàng joxuñu leen xam-xam bu tax ñu mën a tekki mais on les a donné une connaissance reposée sur la théorie et sur la littérature on les a pas donné benn xam boo xam ne dañ ci mën a génn daal di jàng li nga xam ne moom mooy métier un deuxièmement Afrique on a tout on de l'or on le cobalt l'uranium zircon pétrole on a le gaz tu vois on a on a la terre on la le soleil tout près on a la pluie am nañu gàncax mais qu'est-ce qui nous manque en réalité ce sont des dirigeants aptes et capables à nous faire bénéficier de toutes ces ressources et de ces matières que je viens de citer te loolu merci donc on manque actuellement en Afrique on a un problème d'organisation et d'organisateur je m'explique organisation mooy boo amee lu ñu toll organisé woo ko waaye amoo ko organisé finalement yow doo ko mën a jëriñoo loolu moo tax tey Afrique la richesse de l' Afrique est entre d'être maanaam mi ngi mi ci ci ci ci périssement bu doy waar la nekk. parce que li ma lim lépp lu muy doon doon ressource mais c' la jeunesse africaine. moom moo nekk ressource bi ëpp ëpp ëpp doole actuellement ci li nga xam ne moom moo jëm ci loolu mais malheureusement on a des gens politiques on a des hommes politiques mais on n'a pas des managers qui seront capable de développer ça loolu lépp ñu am tey mu leer ne tey ab Europe sax ñi ngi ñëw di màngane Afrique mais lan moo tax ba xale yi mënuñu cee gis seen bopp c'est parce que y manque de politique d'employabilité y a mm

akub ganaar du ko dawal ki koy dawal mool moo koy dawal dañoo dem ba bateau yi nga xam ne gaal yi nga xam ne ñoo waroon dugg ci géej gi di napp tey ñu jaay géej gi avec les accords de pêche gaal yooyu finalement dañoo soppaliku doon ay taxi diggante Sénégal ak Europe je m'explique ki nga xam ne tey jii da doon dem géej napp bu nappee am lu mu yóbbu këram mu xëy gis benn waaye bu tudd fële maanaam nekk ci ruxam tëgg gaalam yett gaal gi fay ci 4 millions bu fayee gaal gi ñu yettal ko 4 millions mu jël 4 millions yi encaissé jeunes yi am benn 100 jeunes 100 jeunes ku nekk jox ko benn cinq cent 500000 muy 50 millions mu jël benn koo xam ne da doon napp ci géej gi ñu jaay ak accord de pêche yi kooku mënatul dem ci géej gi amatul lu mu dépensé amatul lu mu jox këram. ñu jël kooku noonu xëy na ko dafa doon 3 millions wala 4 millions pour yow nga dawalal ma gaal gi kooku defe naa ñu ko lu mu am dem dawal gaal gi donc gis nga bu ñu ko bëggee régler il faut que ñu tenir un langage de vérité avec nos autorités avec nos dirigeants parce que le problème de la migration ni ma koy waxee ce nekk que le prolongement de l'exode rural il faut ñu xam ko li jëlee woon nit ñi ci kaw yi ñu ñëw ci taax yi bi ñu ñëwee ci taax yi fekkatuñu fi li ñu fi bëgg ñoo ànd ak ñi ci daax yi dem màngaani dem fi nga xam ne moom mooy bitim réew loolu am na deuxièmement mais da cee bëri ñoo xam dañoo jàng ba téye seen i diplôme mais mënuñoo liggéey am nañu xam-xam am nañu jom am nañu fulla boo gisee suñu jeunes yi nii ñuy taxawaaloo nii waxuma sax taxawaaloo mais ni ñuy jaayee bu embouteillage amee et cetera loolu moo wax nit ñi ay borom jom lañ mais malheureusement amuñu. maanaam fu ñu ko mën a fu funu fu ñu fu mën a liggéeyee. deux leneen li troisièmement mooy da ngay jàngandoo nit am say diplôme daax koo jàng xam nga ban mérite la am parce que day ànd ak politicien l' administration est politisée nit ñi dañ koy favoriser dañ koy favoriser. est-ce que xam ni ñun daaw on a répertorié des des des professeurs yoo xam dañoo nekkoon ci école di jàngale yoo xam dañ leen répertorié ñuy dem ci gaal ah oui parce que amatuñu lu ñu bëgg. donc le mal le mal pour le soigner da nga koy wax ni mu demee même s'il y a si l'État a en place des politiques d'employabilité mais fan la jëm est-ce que jeunes yi ñu ngi ciy gis seen bopp et cetera et cetera et cetera ñun dey ona a le tour beaucoup dans beaucoup de de, de village on a rencontré des jeunes même avec lu président Macky Sall bëgg liggéey liggéey liggéey te wax dëgg yàlla ndaw ñi lim leen indil mënuñu ko jariñoo amul sens moi j'ai rencontré des gens yoo xam ne ils na savent même pas remplir un canevas la DER ah oui non ils ne de la DER donc mécanisme yooyu yu mu fii nekk te ñoom derñëwuñ ko jegewuñ ci amuñu information yi fan lañu jëm léegi bu ñu jógee ci suñu kilifa yi nga xamante tamit ñooy suñuy président ak kilifa yu gérer réew mi comme ni ñu ko waxee ressources africaines africaines yi nga xamante ni dañ ko piller jaay géej géej xam nga yu kenn xamul yooyu yëpp dafa gën a découragé loo ndaw ñi dafa gën a génn loo ndaw ñi parce que ñu nekk coon ci napp mi man mii am naa ay mbokk yoo xam ña nga ca ndar dañu yoroon ay gaal waaye léegi lu yàlla xam doy na chaque jour dañuy jooy léegi beneen bi mooy responsabilité tubaab yi nasaraat yi tey dañu naan tukki dañ koy teg ci yoon wut say këyit dem ambassade ñu may la visa mais visa am ko jafe na c'est très très très difficile c'est le parcours du combattant daanaka sax léegi dañoo wut seen i bureau à part ñuy traiter affaires yi léegi dangay ñëw dugal sa xaalis loo am visa loolu premièrement nekk na loo xam luy gën a pousser nit ñi ñuy jël ñuy jël gaal yeeg yoon bi. effectivement responsabilité européenne yi. Ah. man dama ko ci situé à 60 pour cent. Mhm. xam nga lu tax. Mhm. li ma wax sànq ne la migration c'est un droit mais dafa am une politique discriminatoire politique migratoire discriminatoire boo xam ne dafa am entre les Occidents ak les Africains je m'explique tey jii balaa maa ñëw ci visa yi je parle des frontières tey ji Europe dafa am l'espace Schengen boo xam ne tey balaa nga faa dugg maintenant avec le règlement Dublin bi nga xam ne au niveau de l'Union européenne et au niveau des des des des pays Schengen ñu ngi koy ñu ngi koy aborder dafa demee noo xam ne ngir nit accéder ci seeni frontières c'est très difficile dañoo lijjanti ba seen seeni frontières dañ ko tëjee noo xam ne kenn ku ñu buggul nga dugg fa doo fa dugg et nous suñuy frontières kenn tëjalu leen ko de xamulu nga lu tax parce que yàlla sur libre circulation un et deuxièmement dañ ñoo gëm loolu ñun ñoom buñ fi ñëwee dañoo ñëw ngir suqali ñu waaye ñun bu ñuy dem dañuy dem pour suqali ko pour suqali ko <laughs> tu vois ñoom quand ils sont là dañoo ñëw pour se pour nous développer et nous quand nous partons vers les occidentaux on part pour se développer. pour dem tibb ñëw pour dem tibb ñëw parce que loolu la ñu loo or tel n'est pas le cas un exemple mm. un Africain qui part en Europe xam nañ koy tuddee un émigré. émigré mais un européen qui vient aux e- euh, en Afrique xam nañ koy tuddee un expatrié wala un touriste. Hmm. dañ naan touriste la. effectivement. Afrique fii menn Assimi Goïta moo fi def lu tax a wax te ba mu ko defee yàggul. Hmm. li mu appliqué les États-Unis fi mu ne nii amul benn américain buy duggati Mali te doo am visa. réciprocité la réciprocité. c'est le principe de la réciprocité daf ko appliquer aux Américains. ni ngeen ñuy traité noon lañ leen noonu leen traité ba pare teg ne leen ne leur visa vous payez maintenant des des frais non remboursables.